mbokki internet chrono actu daal leen jàmm ci xibaar yi ñu fas yéene ko doore ak doxu ñaxtu bu waa SAEMS ak CUSEMS e na moon amal ni ki ëllëk fukki fan ak juróom-ñaar ci weerum février fale ci Ziguinchor doxu ñaxtu boobe nag préfet wu Ziguinchor daal dina koy aaye Saourou Sène mi njiital SAEMS ne fas yéene nañu tënku ci ndigal li te muy sakku itam ci ñëpp ñu bokk ci seen boobule syndicat ngir ñu tënku ci mbir bu nu mel ñu teewlu ko moom Saourou Sène ñun ñoo def une marche doxu ñaxtu Ziguinchor mais suñuy responsable au niveau de Ziguinchor dañ ñu woo wax ñu préfet wu dafa tere marche boobu ñu ne leen donc comme préfet tere na ko na ñu jàpp loolu kenn def lenn loo xam ne ça va à l'encontre des décisions de l'autorité donc ñun ay républicain lañ comme tere nañ marche bi ñun duñu marche Ziguinchor beneen élément bi mu ciy dolli rek mooy neuvième plan d'action la ñu nekk gouvernement wu Sénégal bu dee gouvernement defal nañu ay proposition yu leer dinañ ko partager ak suñuy base xam ban décision la ñuy jël bu dee gouvernement bi daf ñu defal ay proposition yoo xam ne jàpp nañ ni ñun baaxul mais du jar sax ñu koy partager avec nos bases dañ ciy décider tout de suite xeex bi continuer maintenant plan d'action lañ décidé woon mars Ziguinchor dee nañ bu dee prochain plan d'action am na tamitam mën nañu décider def ko ci beneen localité mais ñun en tant que responsable mën nañu def suñu communication à partir Ziguinchor la presse loolu ça n'a rien à avec la marche mais encore une fois de plus pour dire li xew mooy nangu nañ décision préfet te du ñu def euh, aucune action boo xam ne dafay dem à l'encontre de cette décision. section CUSEMS e bu Ziguinchor gis-gis bu wute la ñu amee ak kii di Saourou Sène ndaxte Amadou gise mi secrétaire général CUSEMS e bu Ziguinchor daal dina jàpp ne lay di maanaam motif ba nga xamante ne moom la préfet wu Ziguinchor jibal yéen wut maanaa ñu teewlu ko. manifestation bu ñu nar a am à Ziguinchor le 17 février 2022 euh, manifestation enseignants yi préfet Ziguinchor di ko interdire ngeen lu ma avancé comme région mooy que enseignants yi ñoom dañuy menacer insécurité. maanaam daal du ñu ay nitu jàmm loolu nag ñun dañ ko gis comme saaga ay éducateur boo demee ba ne ñoom dañuy mën menacer sécurité de la ville de Ziguinchor ordre public on est des criminels je pense que loolu dafa mel ni dañuy saaga bépp jàngalekat ci Sénégal et pourtant temps yi ay élèves manifesté nañu partout au Sénégal ñi ñi ngi manif maintenant enseignants yi daal mënuñu manifester parce que bu ñuy manifester dañuy créer ay problèmes ay dégâts peut-être dañuy sànni xeer wala di yàq donc ñun loolu vraiment métti nañu ba fu métti di yem parce que enseignant du yàq ñu xam nañu luy wax même si motif bu ñuy utiliser du motif bu raisonnable mais nag ñu ngi ut yeneen façon xeexin des façons de communication élection voilà de toute façon duñu bàyyi mu jàll on va se réunir on va se concerter dinañu xool yeneen stratégie wax ci wàllum yoon ak yoonal Lamine Samba mu nga xamante ne ab reporter la jëmale ko ci wàllum làmb jafe-jafe mi doxoon ci diggante mag policier ba daal nañ koy àtte ni kii démb ci tribunal bu Pikine Guédiawaye policier bile turam tàmbale ba sant bañan moo doon sakku ci moom ngir mu jëbbal ko xaalisam policier boobu sax daanaka mujj na am dëgg ci Lamine Samba moomule bu ñu sukkandikoo ci yéen kaylo Le Soleil moom reporteru lamb bi daal koy condamné ngir mu fay lu toll ci juróom-ñaari millions yi francs CFA bii le policier jëmale ko ci wàllum dommage et ci fàttali policier bile di Beñan dafa joxoon ay xar Lamine Samba benn weer laata ñuy soobu ci tabaski bi Lamine Samba moomee nag dem ci gëttam daal di fay tànn lu toll si juróom-ñett fukk ci ay xar loole nag war koo dikkee ci koppar fukk ak juróom-ñaari millions yi franc CFA mu daal di jox policier ba fukk ak benn million mu dese ko juróom-benn million yi nga xamante ne da koo teewoon a fay boobule policier loole waral la mu daal di koy porte ji plainte yóbbu ko ci kanam yoona ndar keppe ko wàllum tàggat yaram ak qualification Coupe d'Afrique des Nations 2022 bi ñu ko ci jigéen ñi manche aller second tour ba nag ni ki sànq gaynde jigéen yu Sénégal yi daal di nañuy dalal waa Mali dóor leen benn bal ci dara ci stade Lat Dior bu Thiès Ngenaar Ndiaye moo dugal bitu Sénégal ba ginnaaw bu ñu jogante ñaar fukki simili ak benn senegal nag teg benn tànkam fale ci Maroc jëmale ko ci Coupe d'Afrique des Nations bi ñuy dëgmal ci atum 2022 gii mbokki internet Chrono Actu lii lañ leen indiloon ci xibaar ni ki tey jilee dig daje ëllëg lay doon incha allah si gën a jotaayu xibaar jàmm ak